naa bonne fête de nouvelle année la ñu war a wax comme euh, fin d'année bi passé na mais l'essentiel mooy ñun euh, ba léegi rek dañuy dox ci mouvance su fête bi chaque jour ambiance de jour de fête la ba keroog ñu jeexal euh, GFM en fête donc continuer d'appeler mën ngeen am enveloppe bu toll ci 300 000 ñu baaxee leen ko alors comme promis je reçois ki nga xamee ni moo di Elisabeth Montel Najol Najol moom mankaañ la de xanaa ah. mankaañ la Najel Oulef. Oulef Wawu Diop ah Wawu Diop d'accord Yaani Fit mooy lan moom. ah loolu de yegguma fa nag. ah yegguloo foofu on m'a pas assez initié. d'accord man déjà prend rek yenn saa yi nag ñu jàngal ma lu rëy loo xamante ni su ma ko waxee ay waxi dof la bon. Euh, comme nekkuñu fi pour loolu euh, euh, dañu lay dañu lay gërëm parce que da nga bokk ci kuréel boo xamante ni ay femmes chef chef d'entreprise ñoom ñoo ci nekk alors yéen seen objectif mooy gox boo dugg ci Sénégal ñu am. internet par exemple wala miin yi ñu tuddee euh, euh, TIC ah jumtukaayu xarale yëpp muy internet mu yeneen ak yeneen ak yeneen alors euh, yéen a ngi jëm ci ay dëkk yoo xamante ni d'habitude euh, amuñu possibilité par exemple pour am accès facilement ci wàllu internet Popenguine par exemple di ngeen fa def ay euh, cybercase mais d'abord wax ñu ci fi ngeen bokk ay jigéen rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko sos c'est ça waaw dañu am chance yi bokk lu ñuy wax optique uh-huh. organisation des professionnels des TIC donc uh-huh. qui est une centrale patronale de chef d'entreprise TIC. Mm. te boo duggee optique ñeenti jigéen rek ñoo fay chef d'entreprise ci Sénégal ci li ñu xamagum. Mm. donc euh, ñuy bokk ci bureau bi góor ñi xajal ñu aussi parce que mm. am nañ fa suñu place. Mm-hmm. ñoo ñoom ñoo bokk li ñuy def. mais parité en de maintenant bu jigéen ñu jóg xajal ko. déedéet ñun question boobu ah sax. looloo d'ailleurs. Ah, euh, franchement ah. looloo d'ailleurs jigéen si teg. euh, qui est une journée qu'on organise pour les jeunes filles. On en a parlé il y a pas longtemps. Régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc mm -hmm. on les accompagne parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de place pour les femmes. Mm -hmm. Donc euh, ñu bëri xamuñ comme euh, technologie de l'information et de la communication lu lu yomb si jigéen la. Mhm. waaw ci ñun la gën a yomb ko góor ñi. Ah, parce que yéen da ngeen am xel nag. parce que dañoo multitâche. donc dañuy boyal multi multi intelligente <laughs> donc loolu moo ñu koy donc euh, ci biir optique. Uh-huh. ñu am fa Aywa Aywa ñëpp xam nañ ne personnage yi Bernard Dadier la. Mm-hmm. le pagne noir donc mm-hmm. ñu sant ko lu métti. Mm-hmm. mu war ko def donc dugal si tuuti magie. mais dugal si Pastef. donc ñun tam loolu la ñuy def. ñu ngi suñu biir entreprise. mais bëgg nañ fépp. fu fu nit nekk ci Sénégal pas jigéen ñi mais xale yi mag ñi képp ku ko soxla nga mun see jot parce que état du Sénégal dafa ne tey tout numérique mhm, mhm. du ci télé bi kese lañ koy wax mhm. Euh, ci leneen la tam déclaration de permis de construire sa mhm. sa euh, permis de conduire mhm. léegi ñu numériser ko euh, léegi nga mun a ñaan sa extrait de naissance par internet jot ko mhm. fay par internet et ainsi de suite te doo déplacé wu mais loolu mënul nekk bu kenn connecté wut donc état bi bëri na projet mais ñun xam nañ ne les gens ne sont pas connectés loolu mooy yëkkati ay wax comme comme avait dit Youssou la dernière fois il faut que tout le monde soit connecté ah te defe naa pour que tout le monde soit connecté il faut que yéen ñii jàppale nit ñi ci wàllu connexion ngeen dem vers ñoom euh, mbaa du moo indi euh, projet cybercase yi. alors ñun projet cybercase dañ ko fekk état du Sénégal. donc euh, fekk état du Sénégal di ko waxtaanee lu bëri. Mhm. mais contenu bi moo moo doonoon problème. donc ñu ne nañ expérimenter benn façon de faire. Mhm. boo xamante ne ni dinañ ko mën a dupliquer. Mhm. parce que état du Sénégal ci mbébétam dafa te dinañ am 16000 cybercases. ci Sénégal. waaye xam nga wëññi bu nekk benn lay tàmbale. donc <laughs> Popenguine ñu fekkoon fa benn local. Mhm. ñu jël suñu xaalis ñun euh, chef d'entreprise yi euh, ci Aywa. Mhm. Euh, ñu dugal ci. som bu takku boo xam ne ni ñun ñoo ko moom mais ñun ñoo ko yéene population bi donc mun nañ wax chiffre bi bu leen neexee mm-hmm. euh, cybercase bi environ 34 millions d'investissement moo fa nekk ñun jigéen ñi rek am nañ si 23 donc ah. kooku suñu paste fi bopp la mm-hmm. ñu def ko ci booba léegi nag ñu ci sox di ci sox ça fait 4 ans mm-hmm. population Popenguine yi di ci bénéficier ñu dem ba mu yàgg mu paan entretien xam nga loo xam ne nii mooy réparer boppam mooy fay salaire yi tam donc nga créer leen autonomie que doo leen mun a may xaalis chaque jour mhm. donc yooyu yëpp tax à un certain moment ñu mhm. taxawoon ci activité yi mhm. moom la ñuy waaj a relancer parce qu'on a pu réinjecter quand même environ douze millions pour relancer donc pour mun a nag modéliser maintenant naka la ñu mun a ne état du Sénégal léegi cybercase bi nii la mun a tëddee nii la mun a doxee mun nañ ko yóbbu Fongolemi mun nañ ko yóbbu Kassas mun nañ ko yóbbu Mabo et ainsi de suite dëkk bu toll ci baykat bu bayee ba noppi dem dugg ci internet ne bay naa temps temps laa koy jaayee ku ko war a jënd gis ko feneen dugg ci internet bi ne ko jënd naa li nga bay yépp ci gerte ci wàllu ci ci ay tonnes wala nappkat itam am possibilité li mu napp jaaykatu jën yi bind ci internet tey napp naa ñaata dàmba euh, yabooy lii laa koy jaayee ku ko gis itam mën ko commander directement ñu yóbbul ko ko est-ce que mën nañu dem ba toll foofu grace ak euh, li ngeen di. Euh, lool loolu mën na nekk mooy li ma wax sànq. Mhm. nit ñi dañ connecté wul. Mhm. demoon man maa ngi fàttaleku bokkoon naa jury jigéen si teg 2000 2012 euh, mhm. foog naa ESMT lañ ko doon defee mhm. donc euh, bés boobu amoon na ay xale yu jógee woon Thiès ak xale yu jógee Ziguinchor mhm. seen site internet loolu la doon promouvoir mais tey jii jigéen ñi Popenguine bi man gis naa fa ay femmes yoo xamante ne cybercase bi ñoom dañ fay dugg di calculer seen humidité sol seen espacement de semis et cetera uh-huh. parce que ñun dañ leen di alphabétiser en TIC mais en wolof. parce que dañ fa teg application boo xamante ne ni. Mhm. da lay wax euh, ci sa nopp. Mhm. boo buggee cliquer coller dugg Google nii lañ koy defee ci wolof. Ah. te lool euh, ay promoteur privé ñoo ko développé. fii ci biir Sénégal. d'accord soo bëggee dugg Google bësal bouton bi. waaw mu ngoog waaw intéressant quand même ah, loolu moom dina baax ci man bi <laughs> soo bëggee commander géej bësal géej. bësal bu rouge bi bu xonq bi. <laughs> d'accord et euh, pour euh, projet euh, cybercase bi yéen a ngi jëm euh, Popenguine d'ailleurs euh, suba ci ngeen di commencer lu am solo muy lan muy doon delloowaat ko population yi parce que ñoom ñoo ko yore woon mm-hmm, mm-hmm. donc ñun cybercase bi mm-hmm. ñeenti nit ñu nga fa yoo xam ne ñu ngi ci gox bi donc du ñun ñoo fay dem du suñuy doom ñoo fay dem ñeenti nit yooyu cybercase bi moo leen di jox li ñuy dundee moo leen di jox li ñuy entretenir plateforme bi ak yëpp donc euh, ñu toogoon ba bés euh, ser xam nga serveur moom ñëpp xam nañ xaalis bu bëri lay jar donc euh, si cybercard dañ fa teg benn technologie légère lañ koy wax mhm. parce que popo ngeen xam nga yéen ngi wax sànq courant mhm. am na courant mhm. ADSL mun na fa dem ainsi de suite mais boo demee ba xaw ma benn mun nga dem ba romb ay Salémata yooyu nga dem Ibel par exemple mhm. Mhm. amul connexion amul courant war nga fa mun a teg plateforme bu oyof boo xamante ne ñaari plaque solaire mhm. mun na ko alimenter mhm. ba pare mun nga xëcc sa WiMax mhm. yónnee fa internet bi au lieu ngay xaar ADSL parce que peut-être benn benn opérateur amagu fa clé ak yooyu donc il faut nga am plateforme boo xam ne mun na nekk fépp boo amee courant mun na fa nekk boo amul courant mun na fa nekk bu fa opérateur yi jaaree ak seen fibre optique mun na fa ne buñ fa jaarul tam yow di nga am satellite bu fa wàcc donc c'est loolu moo tax ñu ñu def plateforme bu légère mais plateforme bi il faut mu autonome donc ñu koy delloowaat communauté yi Mhm. suba incha allah góor ñeeg jigéen ñi étudiants yi. Mhm. parce que dañuy waxtaan ne cybercase bi. Mhm. Popenguine ba Ndayane jàpp fim la. école yëpp moom rek lañ am. dégg li Elisabeth mi miin miin li muy wax ah. ngeen dem Popenguine suba yéen ñi dëkk ci alentour yi parce que 10 heures lay commencé en plus de ça di am itam euh, boo bu ngeen ko joxee population bi ba pare di toog waxtaan ak ñoom ah, ñu poser leen ay questions quand pour gën a mën a comprendre euh, a comprendre ñoom ñu gën a comprendre service universel mhm. parce que xam nga yow da ngay fay sa facture mhm, mhm. téléphone internet facture boobu état du Sénégal mu ngi siy jël lu toll ci 3 pour cent ne dafa war a doon ki mun a fay ak ki munul fay dañ ko war a jox lim ci moom parce que ah, ñëpp a war a connecté loolu la ñuy wax service universel xaalis boobu nag état du Sénégal mu ngi ko yore ñun 12 millions yi ñu mujj a réparé état du Sénégal à travers le fonds de développement du service universel FD ñoom ko jox avec le président Ali ci leen ñu ko financé donc subvention la yow mun nga xëy ne tey dama am sama projet mhm. donc bugg naa ñu accompagner ma ci te am nga ci droit parce que sa xaalis la nag yaa ko moom yaa mhm. fay facture mhm. ñu jël ko ci jox ci sa beneen mbokk état bi moomu ko alors bëri na itam pour terminer ñu nekk ci yeneen dëkk c'est vrai que suba Popenguine la ñuy commencer pour delloowaat leen euh, seen euh, cybercase boobule euh, qu'est-ce qu'il faut bu fekkee yaa ngi par exemple bokki jawee nga bëgg ñu ñëw indil lu mel ni projet boobu noonu yaa site internet am na adresse téléphone pour permettre aux populations de profiter de ces projets. déjà mun nga dugg si ci optique mun nga dugg cité ARTP mun nga am na site yu bëri boo ci duggee di nga gis lu ñuy wax SU service universel donc bëri na mais ñun AYWA on est ouvert mm -hmm. on aime bien les projets de femme mais mm -hmm. on aime les jeunes parce qu'on est des mères de famille mm -hmm. donc euh, Bokki Diawé feneen fu munti doon sama xarit du tegal nañ ko fa classe daaw yéen a ngay fàttaleku uh-huh. keneen ak keneen uh-huh. mun nañ ci am donc loolu moom loo xam ne nii la ñun ñu ngi ciy liggéey depuis dañuy am ay partenaire yoo xamante ne bu ñu Pape Cheikh ne dafa bëgg a dem village am mhm. dañuy yëkkati partenaire bi mu ànd ak ñun mhm. dem fa ñu tegal ko ko mhm. ñu joxante rendez-vous passé fa merci beaucoup donc Elisabeth euh, Montey euh, Nadiel euh, Mankaañ la naka <laughs> donc demain 10h rendez-vous fële nga xamee ni moo di Popenguine euh, certainement télévision Futur Média euh, dina ñëw comme ça gunge leen ñu gën ko mën comprendre merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes merci pour tout ce que vous faites pour les femmes aussi merci au groupe Futur Média de nous accueillir régulièrement. en et puis ñu ngi membre AIWA je rappelle que Elisabeth Montel moom présidente du comité de gestion ba noppi itam membre bu pub on se retrouve pour la suite